dañu foog ni sooy jiite dara soo yoree dara da ngay da ngay def ay priorité tey mbas mi daf ñu jàngal ni Sénégal pour école bi ñoŋ dafa am priorité bu am solo mooy naka la ñuy fexee ba école yépp am mur clôture école yépp am ay gaanuwaay am ay point d'eau fexe table banc yu doy pour distanciation yi am fexe école mbaar yépp ñu résorber ko wut ay jàngalekat yu doy former leen loolooy sur priorité euh, wax dëgg yàlla suñu defee leneen nag dañuy def neex affaire blouse uniforme baax d'autant plus que du lu bees inspection d'académie boobu dox ñetti at bu nee na waroon nekk daf dox bi uniforme mais dafa sukkandiku ressources locales sukkandiku si xam-xam local bi ñu inscription am ONG yu uniforme

ku def mur de clôture ku def abri provisoire artisan yi ngi liggéey wax dëgg yàlla na nguuru sénégal ressaisiru xool ordre priorité yi def ko si loolu am solo moo amal njariñ école bi amal njariñ xale yi amal njariñ communauté bi depuis presque lu bat ñetti weer a ngi nii am na benn jotaay bu amoon fële ca jam ñaajo euh, ñuy wax ci wàllu xëyu ndaw yi ci la ñu jël décision ne milliards dinañ ko jagleel ko euh, njàng meeg njàngale mais nag ñun lañu lañu la ñu ci jaaxal mooy ba ñuy jël décision boobu waroon nañu woo askan wi yëpp muy kuréelu waajuru ndongo yi organisation société civile yi ñu waxtaan ñi ne jël nañu fukki milliards pour jagleel ko école bi nan lañ ci xalaat bu fekkoon nag laaj nañ ñu ñun suñu xalaat dañu naan école yi képp ñëpp xam nañ ne Sénégal bari na école yoo xam ne amuñu gaanuwaay bari na école yoo xam ne yi amuñu clôture matériel muy créer ak ainsi de suite dara amu fa nan la ñuy jëlal nit ki dal di koy solal ba mu ne jog dal di dem ca classe ba buy gaanuwaay day dem ci ginnaaw école bi ak yeneen ak yeneen ba pare abri provisoire bi taxaw na parce que ñëpp xam nañ ne am na programme zéro abri provisoire boo xam ne bañ koy wax ba léegi ba tey waxuñu évaluation fan lañ ci toll ci defar bi donc je crois que loolu rek ay yoo xam ne yii bu fekkoon ne laaj nañ ñun suñu xalaat ñun tey defe naa nañ jël xaalis boobu jagleel ko feneen léegi nag comme am na ba pare li ñuy wax moom mooy bu fekkee ne dañu koy def comité de gestion kuréel yi ñu créé pour wala man saytu ñan ñoy ñaw euh tenu yoyu dañu bëgg ñun ñu dal di ciy bokk ak société civile bi ñu dal di xol xam fan la xaalis bi jëm ba paré buñ koy def aussi ñu dal di fexé ba lawal ko ci gox ko goxaan yépp parce que amna ay tailleur nek fi fii ba Kédougou fu fuutaak yépp ñu organiser len en GIE en groupement dañ leen jox ay moyens ñu mëna quand même défar ay tenues pour seeni dom bu boobaa ñoom ñu dal di ci gis seen bopp parce que li ñuy bañ moy mu am ay sociétés yu mak yo xamné yi amna na nu muy demee sax ñu dal di dem de commandé bitim réew dal di ñëw dal di koy inondé ci Sénégal té lolu aussi vraiment bu féké ne dañu bëgg dal emploi des jeunes aussi té ci lolu lañu liggéey ñom nañu fexé dal ba lolu bu féké dañ koy def nit ñi nga xamné ne ñoo nekk ci goxuwaan ci particulièrement les tailleurs yi nekk ci zone yi ñom ñëpp mën ci gis seen bop wayé nak dafa di ku nekk dafa am liggéeyam je crois que inspection académie ak inspection de l'éducation et de la formation. liggéeyam premier moom mooy mu dal di encadrer jàngalekat yi jàngalekat yi jàngal suñuy doom ca anam ni mu waree gis nañ leen foofu foofu lañu leen gën a gisee que ñoom ñuy dal di waxtaan ci ay tenue scolaire ak couleur ban la lañ ko war a def ak yooyu je crois que loolu am na ñeneen ñoo xam ne ñii war nañ ci mën a kii te comme niñ ko waxee léegi nañuy fexe daal ba créer structure yoo xam ne yi ñëpp dinañ mën a toog bu boobaa ñëpp ñu dal di mën a tànn couleur yi tànn qualité wu tissu bi fexe ba xam ñi nga xam ne lii bu ñu defee dépense yi offre de prix yi parce que am na benn point boo xam ne bii defe naa ne laaj na ñu leeral ko Sénégalais yi xam nañ conseil de gestion yi dañu ne dépense boo xam ne bii toll na ci juróom-benn fukki junni trois mille wala lu ko ëpp dafa war a doon dañu war a def demande de recherche et de prix te ñu leer nañu ne am na école yu bari yu nekk ci Sénégal CM yeeg lycée yi xaalis bi day ñëw rek ñu dal di dal di commandé ay tunique yooyu